jërë ngeen jëf euh, mbokk yi nga xam ni ñi ngi ànd ak ñun euh, boobaak léegi ci bis bi nga xam ni euh, mooy colloque bi ñu amal di ko waajalee bisub Cheikh Ibrahima Faty borom Darou Mouhty gis nañu boobu ba léegi ñu ànd ak boroom xam-xam yi di ànd ak itam ñi nga xam ni ràññoo nañu leen bu baax ci ëtt bu sell boobu di Darou Mouhty. moom ka nga xamante ne moo ko doon secondé yàlla moo ko ko tànnal kon naka jekk Cheikh Ahmad Bamba ci li mu indi dina soxla koo xamante ne muy ci moom rëkk. nga xamante ne li li sëñ tubaa indi bu sëñ tubaa jàllee moo koy gën gëm ci mbindeef yi waaye li sëñ tubaa def bu moom rek moo koy mën a assuré ci loolu ci ngay fekk kon waaye kooku nag dafa am critères yoo xamante ne moom la war a mel bi ci jiitu mooy bu sëñ tubaa jàllee mooy ki war a gën a gëm sëriñ tubaa ci ci doomu aadama sëñ tubaa nag moom dafa am obligation gëm boppam ndax a rasulu bi ma undila ilayhi min rabbihi wal muminun yonente bi sax dafa am obligation ci alxuraan gëm mission wal muminun dokkee topp moo tax Serigne Touba moom wax ne amara ni rabbi bi an usarriha bi anna nii mafzaun wa malazun wa ximan fa man araada al xayra fii kiltay daari ni fal yallus bi man yàlla moo ma def may muccukaay te képp ku bëgg yiw fii ak fële ñëwal jaayante ak man xanaa kon Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba gëm na lim doon kii topp ci moom nag te war a sës rëkk ci moom mooy ki ko war a gën a gëm nga xamante ne ak ngëmum day àgg ci ngëm gi nga xamante ne moom la Seydina Ali amoon bim naan walaw kushifa lil ghita mazdadtu yaqinan su yàlla di woon kiiraay yi ma jàkkaarloog jëmam ci sell ji du tax ma yokk ci moom gëm dara ndax dama taxaw ci ñëpp waxta lu gëm kon ki nga war a xam kii war a ñëw war a nekk adudul ayman Cheikh Ahmad Bamba moom it daa war a taxaw ci ñëpp waxta lu gëm ana loolu lan moo koy firndeel Cheikh ma borom daaru moxti mi nga xamante ne moo am benn at Serigne Touba xonc ko ci waajuram muy topp ku ñuy wax Ahmadou Sall ndax booba Cheikh amut xadimu rasulullaay amut ahmadou sàll rek amoon ahmadou sàll moo xamante ne xamuñu ba xam liggéeyal ko mën naa jëriñ doomu aadama dara moom boobu la ko jox boppam ba sax Cheikh ba xëy nekk ab jant bu tiim képp kum ak kum soobul nga xamante ne bi sëriñ Bamba feeñalugu dara nam ko gëme woon ak bi sëñ ba demee ba moom jamono yàlla teg lépp ci loxoom ngëmug maam ci woon amu ci dara lu mu cay dolli loolu mooy dëgg dëggi ngëm waaye kooku war a topp ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasulillaah te war nekk ab mooy ki ko war a gën a gëm ci mbindeef yi ana loolu ndax waa Daaru Muxti dañ koy sos rek déedéet sosuñu ko moo ne ko ayyuhal masbuuxi bi xubbina alladi laa yusbuux bihi ila saidin laa yasqa cer na yow nga xamante ne su fekkonte ne bëgg ma paaka la yow leen ci rendi loolu boobu figure de style yooyu Sëriñ Tuubaa cer rek la koy wax moo war nekk ki nga xamante ne moo war a gën a jàmbaare ci nit ñi ndax dafa wuutu koo xamante ne tubaab bi dafa taxaw temm ci fay biram تيت فاي جيم كاي فاي موم دا فاير باك اك جاسي راي دو لايو كون كي ورا تاخاو اسير لول دا فا ورا دون كو خامتاني ليم كي ورا مانا موي باكانام ني غيس اي بيرم يو بارتي بو دا فا خامتاني بوروم دارو مسجد جوخنا واي لوتاخ مو ريوسير موي سيكون بوبو دا ورا نيكي گنا جامبار كي با ملنا گاينه موم لاكو شيخ ابراهيم جوب المشري دي واخ نان ويخجل ليس يوم الباس منتصرا ويخجل الغيث يوم الجود مبتدرا bis boo xamante ne maanaam danger dafa am bis boo xamante ne xol yëpp dafa jaaxle ana cerno dee gàccal gaynde ci ak njàmbaar waaye nag bu buñ demee ba yittewoo góor goo xamante day taxaw di faji aajo cernu mhm. moo gën a tabe ab taw mhm. yooyu yëpp bokk yi nga xamante ne ay ay tegtal la yuy wane ne dëgg dëgg borom Darou Mouhty mooy ki nga xamante ne c'était l'homme indiqué c'était l'homme providentiel pour pour accompagner Cheikh Ahmadou Bamba ci mission bi nga xamante ne moom la ko yàlla euh, def loo mhm. kon daal mu mel ne Thierno mhm. c'est le singulier qui l'emporte sur le pluriel fardun yaqumu maqaamal jam'i laysa lahu mislun faha huwa shamsun lil kiraami tura loolu la ko Cheikh Ibrahima Diop almashari wax jamono rek daa bëri mhm. histoire wax ji bëri waaye nag man dalla yajhaduhu أو بعد يحصله فالله يعضده وسبو خط خدرا كوكاي أنيانة ولا كوي جي جفم دق دق تيار نراونا تدي زيدو